nee na mi ngi nuyu Cheikh Mouhamadul Fadilu Fall mi nga xam ne mooy jëwriñu sëñ Modou Aminta Fall ak mbooleem rakkam yim àndal yëpp nag muy ñi ci ànd ak sëriñ mi nga xam ne mooy jëwriñu sëñ Fallu ak sëriñ Sohaybu ak rakkam yëpp ak taalibe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 yal na leen yàlla wuutu ci seen jëmm yi ndax moom kat dafa jëfal sëñ ba sëñ Touba faye ko lim ko faye kon nag ku bokk ci moom di dundal loola làq nga ngërëmam te ku làq ngërëmam làq nga ngërëmul sëñ Touba kon nag ñoo ngi leen di ñaanal bu baax sunu borom daal na leen tëbb kàttan tëbb leen ak wér